yoon wi du gudd du yàgg te mën na bañ a sotti comme yoonu Cheikh Anta Diop ni mu sotewuloon dafa mel ni demoo cëng ñëwoo mbaylaar ànd ak opposition bi yaa ngi sànni xeer nguur gi mais yoon bi nga jël donte yoonu xam-xam la duggul ci nopp nit ñi est-ce que tey jii combat bi ngay mëne muy la conquête démocratique du pouvoir ndax mën nga ci egg ak nii ngay demee nii bu fekkee ni tey euh, euh, sa taxawaay changé wul. merci pour la question parce que dañu koy laaj souvent da jàpp Cheikh Anta la mu bëggoon. non non si parce que jiite réew mi. doxal xam-xamam ak programme am looloo ko taxoon. ñun déjà on est convaincu qu'un jour ça va venir. parce que situation Sénégal nu mu demee nii les jeux commencent à être clairs hein. vous avez un programme vous avez des ambitions pour le pays. mais yoon wi nga jël nii pour nga egg ci fauteuil ba dina jafe de. ñu non non mais bien sûr day jafe. si on voulait faire simple ma des APR te jii nii bu ñuy calculer ñenn ñoo war a wuutu Macky Sall peut-être ma bokk ci si je voulais faire simple. tey maay nekk maire de Thiès si je voulais fair simple mais ma dem ci maasaloowu ñenn ñi nga xam ne bon même bu ñu gisee nii que ce qu'ils défendent ça attaque la les principes de la République ils se taisent non on ne le ko def parce que loolu mooy suñu valeur ak suñu conviction ne pas faire mal à la République défendre la République même quand on est seul benn ñaar je reviens sur Cheikh Anta Diop kan moo la ne Cheikh Anta il n'a pas mais mu ngi fii ñu ngi koy tudd ba léegi ces idées un intellectuel une personne c'est d'abord les idées qu'il par les idées qu'il qu'il vit il est là beaucoup d'entre ñu mu dundaloon kenn waxatul ko je parle de Cheikh Anta le politique mais Cheikh Anta le politique est indissociable de Cheikh Anta parce que c'est l'intellectuel qui a conçu la position les armes idéologiques la voie sur laquelle il s'est positionné bu Cheikh buggoon da doon dem ànd ak Abdou Diouf peut-être après dina dina am kii mais pourquoi pour quelle fin. RND pour pour une fin nga def ne Macky Sall dafa réussir parce qu'il a été président de la République du Sénégal mais c'est ça que vous appelez réussir. ah <laughs> non non non attendez c'est discutable encore une fois madame mais est-ce que réussir. parce que su fekkee def na campagne wër àdduna bi wër Sénégal ku nekk mu dem jéem la convaincre pour nga voter ko son objectif était d'être président et il l'a atteint de son vivant donc peut-être am nga yoon boo jël mais li ñu lay laaj mooy est-ce que di nga atteindre sa objectif parce que li ñuy wax xale yu bari ñi ngi xool réseaux sociaux yi mais xàmmeewuñu la la ñuy wax te bu fekkee yaa ngi laaj réew mi popularité daf ci bokk aussi ok encore une fois madame problème bi du foofu on peut considérer Macky peut président Macky Sall il peut considérer qu'il a réussi l'histoire jugera mais man fi may waxee mooy quand on regarde du haut du peuple boo boo président de la République nga xool après onze ans je rends hommage et je m'incline devant la mémoire de vingt 22 Sénégalais ñu wax ni gis nañu seen corps il deux jours ou trois ñuy départ Tunisie lab il se passe pas quinze jours quinze jours ou un mois sans que ay sénégalais lab ci géej la situation actuelle est tellement révoltante booy yi boo leen gisee ñu taxawal ci mbedd mi nga xëy dem foo dem place fu ñuy liggéey Thiès fii Touba feneen gars yi ñu ngi wër ay chantier pour am mille francs par jour bu ñu xëyee maçon ouvrier extra Alors, le pays est dans, dans une situation de corruption absolue. Moi, je suis heureux, en tant qu'être humain, en tant que musulman, de n'avoir rien à y voir. Hamayal a concerné réussir, Cheikh Ante précisément. Il a donné le meilleur de lui-même, en sachant que voix bout simple, bifile. Maintenant, tu es bien, madame. maa ngi woon ci biir mais maa ngi sant yàlla tey bu ñuy wax bilan bii ak di yekk gars yi lu ne man ak sama njaboot ak sumay doom ñu ngi sant yàlla que boole wuñu ci. loolu rek ndam la. bilan boobu moom la moom la ak ay ñoñom bilan boobu moom la ñuy tàllal chaque fois di wax ne le président a fait de nombreuses réalisations ba tax na tey bilan boobu moo tax xëy na mu ñu bëgg mu sampaat ndëndam. bilan boobu moo tax réew mi. bilan boobu moo tax réew yëngu. bilan boobu moo tax réew mi yëngu bilan boobu chômage boobu. ñàkk perspective nga gis ay étudiants yu nekk à l'université de Dakar vingt par chambre xam nga loolu Malick xam nga loolu parce que fu ñuy def bilan aussi nañuy wax walla dem déglu peut-être suñu gars yi sax ci lañu bokk ah sama gars yi yéen wax leen est-ce que dëkk bi dëgërul soxna waaw dégg ngay wàccee suñuy wax dem marché dafa mel ni jéggi siraat dégg nga ko wala déggoo ah kéemaane na <laughs> non yow way moo la fi indi <laughs> alors loolu mooy bilan bi des hôpitaux yoo xam ne le système est tellement pourri dans la dans la dans la gestion laa wax de et l'investissement que Linguère am na ay xale yu fa lakk euh, hôpital Daba maam Dabaax am na xale yu fa lakk les gars, qu'est-ce que vous appelez un bilan Un peuple qui est l'un des plus misérables du monde. Des enfants qui vont pratiquement par vagues en mer se sacrifier. Parce qu'ils veulent échapper à la misère. Nous avons un bilan. Mais le bilan parle de lui-même. C'est extrêmement difficile. Nous avons un bilan. Attendez. Oh, ah, caps. mooy euh, d'abord da nga def lu honorable ci sa àdduna mooy euh, wan ginnaaw dëdd loo